Katina! jaxannama goo xam ni faatoogoo le quotidien le quotidien ne ma lii mooy li ki ñu duppee borom ñaari turi dund daanaka diwaanu Kaolack turbine yéene kaay ne ko déet moom waa ji sant faal nga xam ne daanaka Kaolack dañu mànkoo ni ab borom ñaari tur la dafa faatu libération yéene kaay ne ko turbine may ma ndax ba ñu ko yóbboo Touba waa Touba ci boppam ñoo ne duñ ko fi denc ndax nag dañoo am ay xibaar ne waa ji borom ñaari tur la turbine yéene kaay ne ma ñu jagat jagatee néew bi daal ca leew na nag daal di denc sursu aane ko déet laataa leew na am nag sëggulu duppee malum dem nan fa ñu dàq leen it yéeni kaay bi dee média ko waaye denc nañ ko diwaanu Kaolack ca sëgug lew na ya policier daal taxaw waaye naka la policier daal di wane ginnaaw xale ya daal di ndiiraan daal dugg ca biir sëg ya takk buum ca bopp ba takk buum ca tànk ya daal di koy diri génnee ca almeer ya tribune yéeni kaay naan maan xale yi roñ-roñeeg moom ba ca digg taliba jël ñax mu wow teg ci kaw néew bi booba ma nga xolleeku daal di néew bi ba taal yi daal di koy taal ma ni la lakk ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk l'enquête quotidien naan kon man sama laaj mooy ban Sénégal la ñu nekk ci tribune yéen a kaay naan kon en tout cas moom yaayu xale bu góor bi naqar ci boppam la daal di yëg ba am crise cardiaque ci noonee la daal di jaar daal di faatu yéen a kaay des médias bi naan man procureur daal dinay xam le ni ubbi nañ ci ab l'enquête képp koo xam ne taqee nga ci mbir mi daañu la topp fa mbaxana doonee benn réew mi quotidien naan man campagne gi ñuy jeex na tribune kaay naan maan lu tollu ci junni juróom benn téeméer ñeent fukk ak ñeent ci activité amal nañ ko fukki junni ak ñett ci ay soxna nag ñu dépisté leen juróom ñeenti téeméer juróom fukk ak ñett am ay lésion yoo xam ne daanaka cib cancer la jëm téeméer ak ñett ñoo xam ne ay cas suspect la ñu jël leen en charge junni ak ñeenti téeméer juróom ñaar fukk ak juróom benn ci ay xale yu jigéen ñu ñàkk leen ngir duñu am cancer col de bugaan géy ni assurance wér gu yaram ci bés bi nga xam ne ñu ngi doon xeex ci àdduna wërngal këpp di beer bii lu jëm ci AVC moom géy na Sénégal daal jafe bi bokk na ci fii ci 2023 amuñu lu dul juróomi lal yoo xam ne moo mën a dalloo réanimation neurologique ñi am AVC di roñ-roñ ak seeni malade di wër place fii ci Ndakaaru ak ci biir Sénégal te la cay mujj nag du neex ndax nag daanaka ñàkku bakkan moo cay daal am yoor yoor yéen kaay naan man communauté international ma ngay waxtaanee AVC fii ci réewum Sénégal bugaan géy dañu joxoñ baaraam ak tuuma nguur nguur gi direct news naan ma ngi leen di xamal ne bés bu yàlla sàkk dee ñu tànqal te liggéey ba nga xam ne doon nañ ko def ngir yeesalaat service bu neurologie bu faan dara yembu ca ñetti at a ngi nii ma ne la ñuy wax ca liggéey ba waaye France daal di xideem antenne quotidien naan bugaa na nga naan li am ci Sénégal ci wàllu wér-gu-yaram amul fenn Walf Quotidien naan kon mu boole ca nag daal di defi révélation yoo xam ni maar day taali booba ci politique le mandat yéene kaay naan maan lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk moom Bougane Gueye Dany ca diwaanu Touba le point actu naan maan ay signature am day ma ngi koy yokku ca diwaanu Touba googee waa grand place naan ma nga toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ci parrain yoo xam ne daal dinay tàbbi ci listam moom Cheikh Bougane donte nag politique bi aay nañ ko ca Touba daal dinay def kéntalaay kàttanam ba dajaleel parrain yi waa gëm sa bopp boobu campagne bi ku nekk fa nga far turbine yéene kaay naan maan ca Kaolack Njaay Rahma daal dinay mobiliser soxna yi gannaaw ba mu leen jàppalee sàkku su ñoom ak jàppale président Macky Sall bennoo ca Thiès Nord yéeni kaay bi dee média bi di ma xamal ne Malay Diop financé soxna ak jigéen ya ngir na xamal leen njariñ ak solos président makki Sall moom président Macky Sall moomee vox populi naan man daal nay dalloo ak avenue mel ni kuy sànni ay traag nag naan ñun jàmm lañu woote Abdou Karim Fafana ci l'enquête quotidien naan jàmm joojee day buñ ko bëggee ci réewum Sénégal daanaka coow li coow li moom moo di bëgg continuité ci réew mi waaye tam xool ka nga xam ne moo nuy may jàmm ñu ànd ak moom l'évidence naan man taxawal nañ mouvement jàmm ak taw daal di koy jiite ñu taxawal ko ca diwaanu Pikine yaaye naan sama gént gi mooy Sénégal goo xam ne ndaw ñeeg soxna yi niki noonu it waa diaspora bi daanu mën a ñëw ci réew mi dund ci anam woo xam ni maar day taali te loolee ndax mënees naa nekk ci Sénégal gu Amadou Ba nekkul yéene kaay bi di ma xamal ne may Maimouna Sissoko Khoumé daal dinay mobiliser ca Parcelles Assainies plan action prioritaire bi nga xam ne doxal nañ ko jaaree ko ci may e Maimouna naan lii nag mooy wane jooyante koomu réewum Sénégal ëllëg njiital mouvement national bu enseignant ni moom ak ci àndandoom ci mouvement bi nañ ko yàgg defee fi mu toll nii la ñu fas yéene nangu dogal ànd président Macky Sall ci choix am ndax nag moom président Macky Sall loo ci mënti waxi ku xippi fii ci réewum Sénégal xool ay réalisation am Isaaxa Diop ministre bi dénk wàllub inondation di maire ca Pikine daal dina dajaleel ay parrainage Amadou Ba taxawal concept boo xam ne ñu ngi ko duppee ministre chez vous ñaar fukk ñaar ci délégué yoo xam ne marché bu département bu Pikine la amal mobilisation ci maison de la femme ba diggante promotion ak yeneen i activité commerçant yi ne président Macky Sall daal daanaka sigil na leen l'évidence yéene kaay mel ni ku naan maan gannaaw ay jàmm ca Jurbel day ministre Dame Diop daal dinay ngémbul moom it Amadou Ba maire ya daal di koy tabb ni ki responsable jébbal ko la ñu dajale woon ci parrainage sargal ko ne ko yéen wi diis na waaye nañu jàppale président Macky Sall daam naan kër gi sama kër APR sama njaboota kon nañu fas yéene ngémbul président Macky Sall jaarale ko ci Amadou Ba tribune yéene kaay naan kon yéene ngi ngémb ku naxaree ngémb waay moom nguuruk Sénégal ci boppam APR daanaka dañuy wure wure woo xam ne am ci ndam day jafe-jafe lay doon ndax nag Sénégal ñi ngi xeex xeex goo xam ni maar day taal yi état bi day doxal nu mu ko neexee Amadou Ba daanaka ci week wii toogul waaye opposant yaa ngi dund jaxat na ma ci réew mi la ñu def Malick gàkku def ko Khalifa Babacar Sall def ko Bougane Gueye Dany wane na ni politique gu Sénégal gii daanaka APR mooy doxal opposant yi moom ñu tegee leen fële maître ngañ Demba Touré ci yoor yoor yéene kaay ne opposition bi day mani la bu nu booloowul xooluñu fees féete xeexuñu ba daal di ñàkk élection moom daanaka dañ koy dégg rek El Assane Sall ci turbine yéen i kaay naam kon ñu leen koy wan de ñu ngi leen di xamal ne fi mu ne Amadou fii doxal yéen du ngeen dara te loolee de buñ ko seetaanee maar day taale mën na jóge ci réew mi vox populi naan maan barki démboo njaay moom Amadou Ba bokk Pastef émission la ñëw ci Sen TV génn ci ndumbelaat ñu daal di ko ni niib daal di téye fi mu toll nii ma nga ca section de recherche te Amadou Ba moomee moo waroon yóbbu kalaame Ousmane Sonko a de la justice de ma nga ca tànku juge Sabassi direct news ne ma coow li coow li ci réewum Sénégal mooy campagne C50 PN xam nga coow li daal dina andi riir ci réseaux sociaux yi lu toll ci juróomi téeméer ci vidéo andi coow ñeent fukk ak benn ci million seetaan ko ñetti million ñoo xam ne xamuñu ko woon daal di xam campagne bi fi mu ne moom Abdoulaye Sylla ma nga xam ni sénégalais yi umpale woon nañ ko fi mu ni nii sénégalais yaa ngi tàmbalee lam-laamee kan mooy Abdoulaye Sylla tribune yéen a kaay naan kon waaye ñu nekk Sénégal goo xam ni daal état beeg APR loo ci xamal ni ñi ngi galgal ay opposant moom Malick Gakou kenn ci ñoom ne en tout cas ànduma ak ñoom te yaakaaruma kenn nit ci wotam te la leer ba leer mooy cappaandaw ga duma ànd ak Amadou Ba tribune yéene kaay naan man saye soobu nañ ci grève goo xam ne ñaari fan la juróom benn jàpp juróom ñaari fan ci weeru novembre bii ñu fas yéene banque loxo yi daara yu kawe yi ci boppam fas yéene lompoñ ci réew mi tribune yéene kaay ne ko laaj bi kay moom mooy lii drapeau russe ci boppam lu mu doon def ci manifestation keroog ba waa F24 naan loo ci mënti déggit ñun Sénégal dong moonu ñor ak